Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse jàngeen jëf politique fës na lool ci xëtu yéene yi tey bokk na ci réew mi quotidien mi dikk ci li nga xamante ne moo dal taxawu Sénégal ndax nee na xalifa Sall ñàkk na lu toll ci ñaar fukk ak juróom ni ay cadre yu parti li waral nag kàngam yooyu daal di gedd dem seen yoon bokk na ci waxtaan yi nga xamante ne moom maire bu ndakaaru ba woon mu ngi koy sekk jamono ji ak Benno Bokk Yaakaar te nee ñu ñoom xalaatuñu benn yoon di def ab coalition ak ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon ci nguur gi démission collective bi nga xamante ne moo xew ci taxawu ndakaaru bis bi le jour dafa jàpp ni kon ab jamono bu métti la xalifa Sall ci boppam di dund ndax coordonnateur national bi ak yeneen ñaar fukk ak ñeenti kadr ñoom ñoo fas yéene génn kàdduk madd Codé Ndiaye ci biir yéenekaay bi nee na duñu nangu benn yoon jege ñii di waa benn Bokk Yaakaar yéenekaay groupe e bi dikkaat na ci li jëm ci yaxanal kopparu askan wi di xam le ni kon njiital jëwriñ yi am na ci ay dogal yi nga xamante ne jël na ko ni ki démb bokk na ci xoolaat li nga xamante ne mooy payoor yi ñu jàpp ni bëri na lool jëlee fii yenn ci ay programme yi nga xamante ne dañoo jàpp ni amalul solo su bëri réew Sénégal Les Échos dikk na tamit ci lu jëm ci yaxanal yooyu le koppar ak li nga xamante ne moom la ci Ousmane Sonko na mu def rawatina ci budget 2024 bi bokk na ci lépp li nga xamante ne moo jëm ci ay consommation appareil ak informatique bâtiment nu ñu koy jëfandikoo lépp li nga xamante ne moo jëm ci programme yi ñu jàpp ne kon bëriwul solo lool payoor yi tamit ñu daal di koy xoolaat ba ci sax lépp li nga xamante ne kon jëm na ci émission ci biti réew ñu daal di koy wàññi dogal yi nga xamante ne premier ministre jël na ko moo tax foo yéene kaay gis ni état ci boppam dafa fas yéene takk biiram ngir kon yaxanal kopparu réew mi laas ne ko déet ndax Ousmane Sonko jamono ji opération goxi nationale la daal di sumb ni ki ci ndajeb conseil boobee la ñu waxtaane lu jëm ci soppar ñi njàng mu kawe mi ci Sénégal njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye fas yéene ci xoolaat li nga xamante ne moo jëm ci modèle économique bi gën cee dugal bu baax xarala yees yi yenn tamit ay formation ñu jàpp ni kon méngootul ak jamono ñu daal di ko fi li ñu fi war a jëlee kay mooy au conseil des collectivités territoriales ak conseil économique social et environnemental tey ji la dogal bi war a jib kon ci assemblée nationale moo tax Vox ndaw réew ma foofe nga xamante ne ci la ñu war a waxtaane tey mbébétu njiitu réew mi jëmale ko ci ACCT ak CSE le témoin yéene kaay gis ni tey ji moom député yu Benno Bokk Yaakaar ñoo war a indi tontu ci li nga xamante ne moom la leen président Diomaye fay daa di tegal suñu naatangooy lu ñu njort nag mooy projet Bassirou Diomaye fay bi ci boppam bu moytul dañu koy gantal ak li ci mënti am daal Sud Quotidien mu ñuy xamal ni assemblée nationale ci boppam tey ji dafa mel ni ku nekk arbitre ci ab jongante diggante ñaari kuréel yooyu di HCCT ak CSE ak njiitu réew mi ci boppam ba Bassirou jamay fay bisub alxames gu tey gi daal le quotidien yéene kaay gis ni député yi ci seen wàllu bopp tey ji ci seen taxawaay rek mën nañoo dugg ci taarixu politiku Sénégal ndax plénière bi nga xamante ne solo si foo ko nat weesu na ko li ko waral critique yéene kaay dikk na ci ndax nee na lii nga xamante ne war nañ ko wote tey faatu quatorzième législature bi ci boppam mën na cee tukkee ndégam xamaguñu li nga xamante ne moo cay tukkee Walf bi daal li jëm ci suppression au conseil des collectivités territoriales bi ak CSE ci boppam bëri na ci biir ay lees waxul te muy opposition ak pouvoir ay ndëgg sërëx daal am na ci diggante ñoom ñaar ñaari soxna yi di ay kàngam ci wàllu politique ñoom la enquête yéene kay dikkee tey ak seeni nataal muy Aminata Mbengue Ndiaye ak kii di Aminata Touré ñaari soxna yi nga xamante ne kon seen jaar-jaar wuute na waaye ñu am lool gëdd ak influence ci wàllu politique yéene boppam jamono ji moo téye lengey ci parti socialiste waaye Aminata Touré moom ñu ngi koy méngale ni ab technocrate bi nga xamante ne fippukat la di tamit ki nga xamante ne du dellu ginnaaw benn yoon ci ay ngëm-ngëmam l'observateur di kat ci coowal Fatou Aziz Dabala di xamle ni nambu lay dafa mel ni ku suuxat boppam ni ki démb ci kanamu àttekat bi yéene kaay groupe Futur Média bi di xamle ni moom feccikat bi daan na waxtaan ba quatre heures du ak ñi ñu njort kon ñoom ñoo faat Aziz Dabala Nabou Leye nag ñu ngi koy toppee jamono ji association de malfaiteurs ak complicité d'assassinat assassinat boobe ci la libération xëyaat ni ki tey ji di dikkaat ci secret yi nga xamante ne ñoo tukkee ci enquête dikka bokk na ci secret yooyee du Lamine jaw mi nga xamante ne li mu soloon lépp daanaka dafa takkoon deret ba tax ba muy génn ci appartement bi ab jàllaaba bu Abdoul Aziz Ba ci boppam la soloon wàllu tàggat yaram ak réew mi mi wax ci staff technique bu gaynde yu Sénégal yi nga xamante ne am na coppite ndax Régis Bogar mi nga xamante ne boob ak léegi moo nekkoon adjoint bu njëkk bu Aliou Cissé jóge na ci équipe bi ci boppam fi ñu toll ni nag Pape caw léegi mooy ki ñu toftal ci Aliou Cissé kàdduk Iliman Ndiaye ci yéenekaay bi di record milieu de terrain bu Everton nee na bëgg naa wone boppam dëgg ren ji